Ousmane Sonko souvent nit ñi ma senegal dañu bëgg maanaam bu nit defew toj penc. Mhm. ñu naa non dañ ko waroon a bàyyi jirul def dara parce que bu ñu ko defee mën na ko jox succès déedéet li dul yoon mooy wax nit loo ko wër wax li dul yoon mooy sosal nit li dul yoon mooy feneen nit képp koo def nag yoon daa war a dal ci sa kaw encore une fois ki am ayib. Mhm. mooy Ousmane dama la wax sànq ne la ñett yii moom ku xool yi mbiram gëstu ko bu baax a baax ñett yi da ko ca fekk. ab fenkat la ab soskat la yéekatu fitna la. mais bi ñu toogee di dégg ay nit ne Ousmane Sonko dañu ko war a rey loolu gën a rëy. non yooyu du ma ko wax mais mais mais est-ce que kàddu yooyu gënul rëy. déggoo mu ne Macky Sall ko. a garaaw di yottu hmm? ah, déggoo mu wax ko. Hmm. mais loolu est-ce kàddu. non déggoo mu yow dégg nga ko mu wax ko wala déggoo hmm. mu ne Macky Sall dana ma rey wala mu rey ko. te Macky Sall jotul moom dara parce que Adji Sarr ko porté plainte Macky Sall jotul du moom dara man jàng ma mbay moo ko porté plainte cest à moom moo bëgg luñu luñ lu ko dallu ne mu taxal ci Macky Sall pour nekk pour victimiser wu jaar ci euh, xelum Sénégal yi nga xam ne li ma sax mooy ñoo nga xam ne jànguñu yeewuwuñu loolu nag lay def mais en réalité du li muy wax nii wax dara. même li mu doon def bëgg dem démb waaye ne day dem pour bëgg ñu gunge ko mais loolu Sénégal yi nga gis yu mel noonu. mais bu si yàlla sax si Nicolas Sarkozy. mais dem tribunal France du ànd ak kenn. Mhm. waaye Sénégal nag politiciens yi dañoo baaxoo ku ci ku ci tribunal woo nga daan kay liñ gunge ma xam nga tribunal boo fa jëmee loo war a wut. Mhm. ay avocat ay avocat waaye ñu la gunge parce que ñu la gunge moom duñ dugg ci prétoire bi. Mhm. duñ bokk ñu lay àtte. macha allah maam Ali point boobu am na solo loolu ci waxtaan bi ñu taxawoon ci tuuti leeral waaye li nga xamante ne aussi ba tey jur na polémique ci Sénégal muy coowal troisième mandat.

mu dàq ma ci cabinet am dàq ma ci parti ngir troisième mandat la ma ci waroon a wax na ko ba mhm. mooy jàpp naa ne constitution bi mayu ko ko. Mhm. jàpp naa ne yi boppam it su tënk na ko. Mhm. jooju boppam pare naa ci. maintenant nag. li ma jàpp mooy waa APR aussi sañ nañu nag bu leen neexee parce que yoon tere wu leen ko ñu ne dañoo bëgg Macky Sall nekk seen candidat am nañ ci droit am te kon bu ma sañoon duñ ko def parce que dañuy weddiloo Macky Sall ay waxam te nit kilif nit ay waxam. voilà man noonu laa ko gisee quoi. mais sénégalais yëpp gis doxalin bi nga xamante ne ñu ngi koy doxalin mais doxalinu forcé pour am troisième mandat lañ gis. non non xam nga euh, non non forcé xëy na pour nekkaat daa waaye troisième mandat moom mooy bis bu sénégalais yi woote ji. troisième wax effectivement ginnaaw ku ne mënta am benn. ku ne mënut a nekk candidat mu dàq la. Hmm. ku ne mën naa am téeméeri mandat mu bàyyi la fa wala mu neexal la. ah nit ñi am nañ droit ñaaw jot ci ne effectivement. Mhm. dafa bëgg nekk candidat. dafa bëgg nekk candidat loolu moom nit ñi am nañ ci droit ñaaw ci njort. Mhm. macha allah maam Ali xam naa loolu ba tey rek ci waxtaan bi mais ki nga xamante ni moo di Ngagne Demba Touré da koy faral di déglu te mu nekk Pastef euh, mu am kàddu goo wax mais dañoo gis diabolisation bi démb daay dañ ko may ampleur loolu ci li mu wax ni bis bu leen fi yàlla tegee bëgg nañ dindi li nga xamante ni mooy nit di jaamu nit. Euh, ak ci sens bi mu ko waxee mais ak sens bi ko sénégalais diabolisé. ba dugal ko ci diin non non non bu ko tuddee diabolisé moom ci boppam moo wax moo wax tooxi doona mais li mu wax lu si nekk tooxi la ba dafa fen ci naka loolu nekku ci nekku ci statut Pastef lim ne moo nekk ci article 5 nekku ci hmm. bu ci nekkoon du ñu jox parti demal nga lire statut Pastef doo ci gis turu yàlla parce que parti politique Sénégal dañ ko tere mu tudd mu tuddoo diine et puis Kébé nit ñi bu ñu bu leen neexee ñu jaamu caam bu leen neexee ñu jaamu Kébé mais ñoom seen discours yëpp presque diine la lu ci bëri non hmm. parti politique Sénégal dañ koo tere mu wax ci diine yoonam nekku ci dañ leen ko tere parti politique du tuddoo diine du tuddoo xeet askan du tuddoo région loi bi moo ko tere ak constitution kon moom li mu ne seen parti seen article cinq bu statut bi loolu ci nekk nekku ci nekku ci nekku ci li mu ne jaam bàyyi nit ñi jaam bàyyi jaamu nit ñi di jaamu yàlla nekku ci dafa wax lu ko neex bi ci des mooy. Mhm. fii ci Sénégal. Mhm. kum neex nga jëlu garab def ko sa yàlla. kenn du la ci wax dara parce que am nga ci sañ-sañ. kum neex nga gëm kum neex nga bañ a gëm. Mhm. muy la liberté de conscience. loolu moo am Sénégal. kon encore une fois bu fekkee man moom daa jàpp ne seen parti daa war a liggéey ci mbirum tawhid c'est ab parti politique tawhid yoonam nekku ci. encore une fois pour man euh, wax na waxu dof. maintenant nag waa parti ñoo ko war a rectifier li may wax nag xëy na li ko dal mooy ginnaaw dafa ñoom moom dañ ko def staru euh, waa Pastef ba mu defee ne lu ko neex wax. Mhm. Ah, wax na wax bu rëy rëy rëy te jàpp naa ne waa Pastef ñoo ko war a recadré waat. mais wax li mu wax Ousmane moo ko wax. Mhm. ministre de l'intérieur dana dissoudre Pastef boobaa. waaye nag moom il n'a pas de responsabilité bu toll ne ñu li muy wax ñu jàpp ne Pastef moo ko wax d'autant plus que li mu wax nekkul ci statut bi. nekku ci bu la neexee nga dem liir ko man liir naa ko mais mais ñi ko sénégalais déggee nit bàyyi jaamu nit ak ni nga xamante ne noonu la ko tojee si suñuy bu mu jaam ak yeneen ak yeneen mën a dox non dama ne mhm. c'est-à-dire xam nga sénégalais yi mhm. bu leen nit bu leen neexee ñu jaamu fas gëm nit ku mu neex nga gëm fas kooku yoonu kenn nekku ci yow mi ko gëm yow mi koy def yow la concerné dégg nga lu ma mhm. constitution bu Sénégal moom moo moo moo def ci réew mi la liberté de conscience ku lu la neex gëm Mm-hmm. bu la neex nga doon murit bu la neex nga doonu xaadir bu la neex nga doon catholique bu la neex nga doon murit ba yàgg nga bàyyi dem doon catholique yow kenn du la ci teg benn daan ndax loolu nit ñi am nañ sañ-sañ boobu. Mm-hmm. kon parti politique moo war dugg ci yooyu un leader politique moo war a dugg ci yooyu loolu nag li ñu ci jàngat mooy Pastef dafay parti suuf kànja. Mm-hmm. da nga cee fekk ñoo xam ne xëy na li Ousmane Sonko doon joolaa moo tax ñu bokk ci. ñeneen ñi lim dëkk Casamance moo tax ñu bokk ci. Uh-huh. am na ci ñoo xam ne affaire salafiste maanaam pour ay islamiste moo tax ñu bokk ci am na ci ñoo xam ne ay révolutionnaire lañ maanaam nag euh, mu nekk suppu kànja suppu kànja nag gi euh, maanaam jig na suppu kànja dina baax ci ku sant Kébé. waaye mm. baaxul ci parti politique. <laughs> parti politique. Uh-huh. war am ligne. Uh-huh. ñu ne parti politique bi lii lay tuddoo waaye boo bëggee doon lépp boo defu ndànk doo doon dara. bokk Pastef la bokk ci parti yooyu mhm. c'est-à-dire ñoom li leen gën a intéressé mooy képp ku mer rek ñu ñu dajale ko mhm. waaye loolu boo ko defal bay bàgg si ci pouvoir nga xam ne musiba nga def mhm. parce que nag parti day am programme programme économique programme social waaye bu fekkente ne sa li ngay def lépp ci ak pexe ñi dajale ñu noonoo peut être ki fi ne ah du du programme mais encore une fois pour man li mu wax euh, moom ci boppam dafa juum wax na lu dul dëgg nekkul ci seen statut beneen bi ci des mooy Euh, nitu politique yoonam daa nekkut ci tawhiidu nit ñi parce que nit tawhiidu nit ñi moom nit ñi nit ki nit ñi rek la concerné ndax li suñ Tuubaa yi wax nag mbirum mbirum mbir yi moom nag lu waay def boppam. mais nit ki ki la sopp bëgg ko tawhiidam nga gis tamit lu baax tamit. doo ko ci dan di nga ko ci woo nitu politique yoonam nekkul ci tawhiidu nit ñi. nitu politique li li ko muy li war a moom mooy li parti politique mooy programme économique maanaam xool koom gi nan nga koy développé njàng mi nan nga koy defaree. mbay mi nan nga koy defaree artisanat bi nan nga koy defaree médecine bi nan nga koy defaree ba nit ñi mën a faju tër yi ak ak ak yooyu loolu mooy liggéeyu nitu politique waaye taw tawhid loolu nit ku nekk boppam la yoonu politicien nekku ci mhm. Sénégal a choisi d'être un pays laïque les parti politiques et la république seen yoon nekku ci diine nit ñi la la république aussi les partis seen yoon nekku ci diine ji dañ cee war a maandu. Hmm. bàyyi nit ñi organiser seen diin nu mu leen neexee. Hmm. encore une fois pour man dafa jum. dafa jum dafa jum waxul dëgg ndax li mu wax nekkul ci statut yi xam nga nit ki bu waxee dara damaa jàpp li gën mooy nga fa mu ne fa la ne nga dem xool loola. so bu nit ñi defoon loolu rek coow li du bari moom waxul dëgg mais daanaka li ci mën a jàngat nag xëy na kon maanaam ci biir Pastef moom damaa defoon ne man Sonko rek ay fen waaye Ngagne Demba aussi bokk na ci fenkat yi encore. parce que hmm. li wax nekkul ci statut nekkul ci liir naa ko bu baax a baax. Mhm. li mu wax nekkul ci statut Pastef. Mhm. Pastef néewul damaa bëgg a defar tawhidu nit ñi néewu ci. encore une fois je crois que waa Pastef ñoo ko war a weddi parce que loolu nag à moins que ñu bàyyi bëgg ko cee bàyyi noonu pour nax ñi nga xam ne xëy na euh, ñi naan ko ku ku sell moom. Mhm. ku sell kenn du ko wax ko jaxase. ñenn ci kër ñenn ci kër kilifa diine yi. moo jaboliser boppam parce que Sénégal nit ñi dañoo ami tarixa sëriñ. boo demee ci murid yi bu ñu jébbalu ci seen sëriñ dañu naan jébbalu na àdduna alaxira mais sëriñ bi di leen jox. mais sëriñ bi di leen tudde doom xaaral ma di leen tudde seeni doom. Mhm. di leen jox seen wërsëg. soo demee ci Tijaani boo saliku naka noonu. muy muy kër ba Alaaji Maalik wala kër Cheikh Omar boo demee ci xaadir yi noonu. mais sëriñ bi yàlla leen di jaamaloo. mais bi loolu loolu moom da koo gën a xam nit ñi. Mhm. moom gën a xam loolu nit ñi. Mhm. man li ma jàpp mooy murid yi jaamuwuñ benn sëriñ yàlla lañu jàmm xëy na mm. jàpp ni bu seen sëriñ bu ñu ko defalee lu baax xëy na yàlla fay leen ci mm. kon encore fois même bu fekkee moom xelam daa nekk ci ne murid yi wala tijaan yi dañuy jaamu ay nit bañ a jaamu yàlla ah su boobaa tooñ na murid yi ak ak non mais mais moom waxewul foofu nit ñi ñoo yóbbu yow ay kàddoom foofu moom kebe kebe déggal ni bu mu nooteel gi gars yi di noot déggal ni ni mu waxee te bañ a nag euh, wax nit ñi ni ñu déggee am na ñu ko dégg xam nga man maa yow bokk ñu dégg waaw loolu da dëggal moom pour man li mu wax amut parce que xam nga loolu laa xam nga mën naa ñëw fi di ko jéem a enfoncé. Mhm. di ko takkal pour pour diaboliser ko xam nga man diaboliser wu mu ko. dama ne mhm. li mu wax du dëgg. saa mhm. nekkul ci statut Pastef affaire diine nekku ci. parce que bu ci nekkoon ministre de l'intérieur di sutur parti boobu. kon encore une fois pour man euh, kenn diaboliser wu ko moom ci boppam moo moo war a taxaw laa mi wax lu wax lu ëpp xam nga nag. wolof jaay def ne borom boppatu tëggi mi ngi yaatu moom. Mhm. yàlla noonu ci yàlla musal bu waxee rek mën naa wax musiba. Mhm. looloo ko dal. looloo ko dal maam Ali mi kàddu yu am solo xam naa fi ñuy taxawee tamit aussi du ñàkk mu sànni ci ay doom ndax it seetlu nañ euh, mu doon ñu bëri gis ni néewal doole la wala jaay doole la ci ñi nga xamante ne ñu ngi koy dundee ak presse bi euh, li ñu teg Walfadjri ci coupé signalam. ah signal Walfadjri bi ñu coupé. Mhm. man nag damaa yaakaar ne Walfadjri boppam la ñu war a tëj. ndax lan. ah Walfadjri day politique day campagne Hmm. mais bien sûr yow ko wax ku leen seetaan ku nekk ba jant bi so nga xam ni ñii il ne respecte plus le cahier de charge bi bi si bi ñu woon pour pour am en tant que en tant que télévision waxuma la CNRA mais le le sous-préfet bi nga xam ne fi la Walfadjri nekk. Hmm. bu ko neexoon mu tëj Walfadjri waxuma la nag CNRA. mais li waraloon ñu dagg signal bi tey jamono ji nga xamante ne président Macky Sall nekkoon na opposition lii amoon na ci ba mu dem seeti leen. c'est son problème. c'est son problème mu demoon fa c'est son problème dama ne wal fa jëri ku xool ni ñuy doxale at yi hmm. nekkatu télévision boo xam ne day informer nit ñi c'est devenu une agence de communication de Pastef et de Ousmane Sonko c'est la vérité parce que wal fa jëri est une cellule de propagande de de de Pastef suba ba ngoon émission bu ne moom loolu lañ fay def. mais dañuy daral parti au pouvoir. di oh, dalal opposant loolu ça c'est ce la démocratie de témoignage. Hmm. la démocratie de témoignage man bu ñu ma wax naa wax naa leen ko ne bu ñu kenn kenn mën dootuma fa dem parce que li ñuy def du du démo du pluralisme du pluralisme. Hmm. il faut de la politique. moo tax waruñu nu yem rek ci coupé signal wala fa jël ci boppam la ñu war a tëj et maintenant waruñoo yem foofu nag. Hmm. tout toute la presse boo xam ne dañ da au lieu ñu informer nit ñi. Hmm. ñu dugg ci propagande muy presse écrite ak lu mën a doon. dañ ñu war daj seen kaw. mais un Duran la. je peux comprendre un parti politique bu yor journal am. Hmm. di ci campagne propagande mais bu fekkee da ngaa tudd information de journal d' information générale. wala site d' information générale. wala télévision d' information générale. Hmm. war a dugg ci def campagne ak propagande pour parti politique. mais pourquoi ñu xaar ba manifestation bi ñu def lii parce que comme ni nga ko waxee yàgg naa def loo xamante ne da ngeen di gis ni loolu xaw ma ko xaw ma lu tax ñu xaar loola waaye dama ne li ñu def nii moom dañ koy yéex a def te waruñu woon a yem rek ci coupé si une semaine. dañoo waroon dañoo war a tëj Walfadjri. dañoo war a tëj Walfadjri. absolument mais loolu rëy na de papa papa parce que. tamit dafa gën a rëy. la ñuy def la ñu def moo gën a rëy. mais ñoom dañuy informer askan wi. informer wuñu kenn dama déglu ma Walfadjri est devenu une cellule de communication de Pastef et de Ousmane Sonko. et c' est honteux triste je crois que d' ailleurs Sidi Lamine Niass fa mu tëdd ci àllaaxira mi ngi yëngu ñu ngi ñu ngi yëngu dans sa tombe ils sont en train de piétiner sa mémoire. mais c'est vrai Sidi amoon nay ayib. ba muy dund lii daloon na ko. Ah, non amoon nay ayib. mais il n'a jamais il n'est Walfadjri n'est jamais descendu aussi bas que Walfadjri que que ni mu mel nii et noonu <laughs> nañ bàyyi caaxaan yi quoi. Hmm. nañ bàyyi Sénégal yi ñuy fooyee. Hmm. macha allah maam Ali xam naa ne kàddu yi am na solo loolu ci waxtaan bi ñu seqoon ak suñu su ne rek dañuy am mbégte bu baax a baax a baax di dalal kilifa yu mel ni moom ndax it seen wax day doon kàddu yoo xamante ne day am njëriñ ci askan bi ñuy am mbégte nag bu baax a baax a baax taral ko xam naa papa ma profité ni àjjuma ji léegi mu xool léegi maa ngi mhm. ñu ngi seetaan mhm. fekk liñ fi wax nekk na dëgg te am ñu sante ko yàlla subhanahu wa taala mhm. buñ fi juumee ñu ngi jégalu nit ñi Uh-huh. encore une fois maa ngi leen di gërëm ci ñëw gi ngeen ñëw fii. Uh-huh. jërëjëf jërëjëf maam Ali nii rek la ñu ko defee woon ak moom di kontaan bu baax a baax a baax ci dalal bi ñu ko dalal di leen jox dig daje ci beneen numéro jëre ngeen jëf.